noo xam ni mag ñi ñoo ko tënk ci benn baatu wolof léeboo ko ibra du jag mooy àdduna ibra du jag ñu léeboo ko noonu àdduna maanaam kenn mënu koo defar waaw kenn mënu ko yaay jéem a jéem la nga mën rekk waaye du tee rek mu demee ni nga xam ni moom la ñuy demee di yiy faral di am tambale ci kër yonent bi alayhi salatu wassalam tambale ci kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunu ben mam ju bax ju nek fi ci Touba ñu ko mam Cheikh Moussa Ka dafa am lu mu ci indi ci ben wala fal di wax naan la xew ci saaba ya ginnaaw yonent ba ken waru ko wax ku xamul batin ba waaw la xew ca saaba ya ginnaaw yonent ba waree su ko wax ku xamul baatin ba ndax lu ne xew na ginnaaw yonent bi ndax tellu ni am na ci mbir yoo xam ni làmmiñ du ko laal waaye am na ci mbir yoo xam ni def na ko misaal teg ci ni fa wajabal imsaaku amma shajara waaye danaa leen ci mosal tey ji dara ndax ku xamul baatin mu dolli ko ku waar ku xam arab na seetu nuuru labsaar xam nga ku doon donnaale xaaju Malik si radiyallahu taala anhu ni mu doon na yonent bi noonu la donnaale woon ya ca këram ma ciy profité di joxe nasiha maanaam di euh, laaye biir pour ñu bokk ko pour ñu bokk ko laaye biir pour ñu bokk ko mooy euh, ginnaaw yonent bi lu ne am na sallallahu alayhi wa sallam yéen ci mën a tudd indiwaat na ko ndax dafa ne ginnaaw rasulullahi ak siddiqu la ñu rendi Ousmane dellu jëm Farouq usmaan nag gaaw nañu kër gi wër nañ ko encercle ko arbaina yowman watis atan lii doon ne fecci war ma hmm? toppee ko noonu toppee ko noonu nga gis ni lu xew kër yonent bi xew na kër si Hadji Malick radiyallahu taala anhu waaye dafa am wax boo xam ni sama waajur moo ma ko dénk woon wax ma ko ni ma kër gu ñuy askane la yàlla ni yàlla moom kër ga subhaanahu wa taala balaa nangoo ne moomam kër ga mbete mu boole fa ñaari mbërëm yi ñu bëree te moo leen di waajalal boppam moo leen di ngembal boppam moo leen di dooleel mooy dogalu yàlla ak mayu yàlla foog ñu bëri te bu ci nekk yàlla la dooleel moo la ngembal boppam moo la waajal bëri nag day metti mu ne bu ñu askanalee kër ga yàlla te fekk du këram cong mu jëkk ma mooy fay leer ga waaye bu fekkee muy këram lu cong ma gën a jaxasoo ak lu mu metti metti metti day gën a yànjal leer ga nga xam ni moo fay nekk ba bëre ba dana sotti te su boobaa leer ga des fay sax waxtaana ya fay des nag su boobaa kenn ku ci nekk te nga bokkoon ca war nga fexe noo bokke ca ña nga xam ni la ca rafet ca ñoom lay féete la ca rafet ca ñoom lay féete loolu bokk na ci natt bi nga xam ne wàcce na ci kër gi Xaaji Malik doon naa la ko ci ne mu doon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëñ Cheikh am bés mu wax wax bu mat di xalaat fu ñu toll ni maam xaaji Mansour radiyallahu taala anhu moom daf ko seeti woon moom sëriñ Cheikh bés booba ñu ngi toll ci ndono lii nga xam ne moom la Maodo doon naale ci kër gi nee na bàyyam maam xaaji Mansour ni ko Cheikh réew mi fayuñu sa maam ndax fu ma lëj ma sa doy waar sa maam taxaw na fa defar foofa këram mel nii mu mel ni dañu seetaan mais ku doon doon naa la mais loola day ñëw di dox di dem ñu wattu nag xam nga bu dee ca kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam di nga dégg sax ñu koy woy naan xeex nañu waaye daañu tàbbi aljanna xeex nañu waaye daañu tàbbi aljanna lu dul kar karay zubayru kooka perte na dafa am ñoo xam ne lu xew ñu rey ca seen bopp gaañ ca seen bopp wala yaasu billah yaa nañ ci yàlla musal ci dara jent bi alayhi salaatu wasalaam sëñ cheikh radiallahu anhu waxoon ni sëñ babacar si radiallahu taala anhu moo waxoon ni nattu alalu jullit la yéefar bokku ca tuuma alal li gor la saay-saay bokk ci mu ne bokk na ci lu ko yéem jullit yu ñemeetul nattu ak góor yu ñemeetul tuuma comme sunu alal la te ñooñu ñu tudd ñii la jaboote ay ay di jullit la jaboote ay góor di jullit la jaboote du dëgg kër yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kenn bonu fa ñëppi sang lañu ñëppi sang lañu looloo waral maam Cheikh Moussa Kañe la xew ca saaba ya ginnaaw yonent ba kenn waru ko wax ku xamul baatin ba kër Maulana Cheikh Abul Abbas loolu wàccoon na fa ñëppi sang lañu kër Maulana Cheikh Al Hadj Umar noonu kër Hadj Malick si noonu kër fa tabaarakallaahu bii ñu yàlla boole it muy kër sëriñ Cheikh noonu la waaye ñu xam ni lu mu metti metti metti ak lu mu doy waar doy waar doy waar ay sang lañu ay góor lañu ndax deret jee tax hmm? ndax deret jee tax kon wattu fa tabarakallahu day baax surtout ci wàllu wax ak ci walu jëf ak ci walu jëfin ak ci wàllu jëflante hmm? ak ci walu jëflante hmm motax ma tuddé ko euh laye bir buma ci lu ci la Serigne Cheikh waxoon radiyallahu taala anhu ni jamonoy jamonoy nee na yàlla du ca nangu ngëm ndax dafay yomb bu mu ëpp muy neex rek nga ni gëm naa ku ne mën na ko hmm? waaye balaa nangu ngëm nee na indi épreuve yi te mooy nattu yi ci biir xat-xat yi ci biir tàng-tàng bi ci biir jaxasoo yi nee na fa lay tànne ña muy tànn moom foofa ku rafet mu tànn la ku ñaaw mu teg la fële te dafa am ñoo xam ne lu ñëw ñu ñaaw ca yaa ngeen ci yàlla musal ci dara yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci la tax maam sëñ Babacar Si daan wax ni na ngeen amee jikkoy salguuf salguuf ñu ne ñax la muy sax ca àll ba sew lool ñu di ko séen ca kaw ak taxawaayam bu jekk lu ngelaw metti metti metti metti dafay tëdd bu ngelaw la jàllee mu siggi taxaw fa mu taxawaatoon mu siggi taxaw fa mu taxawaatoo te nag dañoo toll surtout ci jamono boo xam ne bu ñuy ñaan yàlla nañ ko ñaanaale mu may ñu kàttanu mëna a rawale sunu pas-pas yóbbaale ko fa moom buyu jékku ko subhanahu wa taala ñu ko ñaan loolu hmm? la ma sama wayjur dénkoon ni yàlla bu indee épreuve yi di nattu ci këram ci këram boo dul candidat bokkoo ca professeur yi nga xam ne ñooy examinateur yi doo surveillant <laughs> nee na luy sa yoon ci épreuve yi hmm? luy sa yoon ci épreuve yi boo dul candidat bokkoo ci ñu ñuy testé hmm? doo surveillant bokkoo ci ñi nga xam ni ñooy euh, ñiy joxe si tabarakallahu euh, professeur yi nga xam ni ñoom ñooy euh, seet ndax ñi ñuy testé xam nañu mokkal nañu dégg nañu wala déet ba kuy jàll ca dégg gaak xam gaak mokkal ga ca ngay jàll kuy des gannaaw ca ngay des a ginnaaw yow boo bokkul ca ñooña hmm? da ngay seet nooy melawoo ngay seet noo cay melawoo wattu def ndànk di bàyyi xel nag sa diggante ak sa boroom subhanahu wa taala di bàyyi xel sa diggante ak sa boroom boole ca it di boole ci di ñaan foo toll du tax la mag ña tënk àdduna noonu ni ibra du jàkk àdduna ci boppam la yàlla subhanahu wa taala bindee noonu foog ñu nangu ko nag foog ñu nangu ko waaye ñi bàyyi xel la sëñ Cheikh Tidiane si waxoon radiallahu taala anhu ni diggante mbuuraakeeg cuuraay nee na yàlla du fa tànn kennam ndax nee na xam na ni yaafus moo fay génn diggante mbuuraake ak cuuraay muy neex rek muy neex rek nee na yàlla du fa tànn kennam du tànn kenn moo tax mettit metit yeeg natt yi ñu nekk yépp kenn ku ci nekk fexeel ba defar ci sa bopp ba bu pënd bu wuree yàlla defal la ci sutura su toll ni doo bokk ca ña cay gaañu waaye am na ñoo xam ne lu ñëw ndeysaan ñu gaañu ca yal nañ ci yàlla musal ci dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax ngay dégg ca way wa gaañu mag yi démb ji daan ko way naan xeex nañu waaye daañu tàbbi aljanna lu dul karay Zubayru kooka perte na dafa def lu ëpp moo tax hmm? ku def lu ëpp nag wax lu ëpp wala yaasu billah bootul lu ëpp dal la kon nag bokk na ci gàmmu dénkoonte dénkoonte تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر